allo Mor. waaw. maa ngi lay nuyu Mor yaa ngi ànd si Feeling Dakar. <laughs> maa ngi seer Bamba. <laughs> fan nga nekkee nii fan nga tolloo. actuellement maa ngi ci euh, devanture stade bi. yegg si nga. Mhm. mais lu ñu mën a noter fii moom mooy euh, en tout cas waa Pikine. comme waa Parcelles def nañ mobilisation parce que ñun ñu ngi woon ci Modou mhm. Ali euh, mu ngi woon ci Ama Baldé ci Modou Lo lañ jógee ànd ak bi ñëw gis nañ ko extraordinaire ba fii fii en tout cas bi tamit gis nañ benn mobilisation boo xamante ni waa Pikine def nañ ko ama yee ji parce que boo nekkee ci buntu stade bi da ngay dégg ama yee da ngay dégg aussi tamit Modou mu nekk la am koo xamante ni mhm. ni ma ko parce que ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk indi nga confiance ama maa ngi génn këram maa ngi woon fa génne hmm. mais naka la génnee Mor Mor Mor naka la Modou génnee sentir naa ne mystique laalu la yaa nekk lamb joo maa ngi lay laajte la ma ne naka la Modou génnee tey euh, est-ce que am na confiance wala gis nañ ko moom sérénité euh, naka la génnee waaw mun doo toujours comme d'habitude noonu la ma mel buy génn wala bu ci biir jiw sax da ngay gis que ni dafay resté serein dafay mhm. nekk koo xamante ni euh, dafay calme parce que euh, ñu ngi ko convoqué woon 17 heures mais ba 16 heures parce que lay doog di génn këram bi muy génn da nga gis que ni dafa jël organisation boppam taxaw seen buntu kër lu jafe ci mbër nga xam ne bu mbër wan day mel dafay xabtalu moo loolu bi muy génn këram dafa taxaw ñaanal boppam dégg lu mat presque cinq minutes di ñaan damay ah. tooñ naan ku taas xanaa yaasin la tari ñaan nañ ñaan bi yàgg daal di ne gars yi day delsi waat borom bi dafay delsi daal di njàpp dugg ci li nga xam ne moom mooy oto bi loolu nag ci mbër mu mag expérience mën na ko maye parce que moom loo laa mujj rëy mënatu koo jaaxal hmm. bis bu rëy bu nekk bëri na ko le 21 mars 2010 muy bëri Balla Gaye laa mu gënu ko rëy ci muy bëri euh, apparemment premier la moom ak na ne échéance euh, la par rapport ak yi nga xamante ni doon na ko def mais daal gis naa ci moom confiance gis naa ci moom sérénité gis naa ci moom aussi tamit audacité bu toll ni ñu bëri jàpp nañ ne mu loolu làmb ji làmbam la. ok euh, ci wàllum sécurité également est-ce est gis nga fa benn sécurité bu bu demee noonu. waaw surtout comme niñ ko waxee woon parce que Baol production bi Fallou Ndiaye moom moo jore wàllum organisation bi waaye aussi tamit euh, li ñu ko laaj da cee ànd ak euh, alburam boo xoolee euh, kii nga xamante ni moom mooy EDK ba la ñu commencé sécurité bi def foofu ay barrières def aussi tamit ba boo ñëwee ci li nga xamante ni moom moo wër ba jëm côté bi nga xamante ni rek moom mooy rond bu Canada bi. Mhm. tellement que ni foofu fépp gis nañ wax dëgg yàlla ay forces loolu boo xoolee ba ci guddi fii nii parce que li di gaare euh, ci ay euh, oto force la du mënoo ko compter waaye aussi ba ci seen fas yi sax dañ koo àndaale nga xam ne ñoom it lamb wax dëgg yàlla ci wàllum sécurité gis nañ ci lu jéggi dayoo. kon daal moo doon actuellement yegg na ci biir stade ba moom. waaw ñu ngi ci bunt bi nii di jéem a xool lu ñu négocier pour dugg ñu ngi jéem aussi tamit euh, dégg suñu ay micro yenn ci ay supporteru Modou Lo comme Ama Baldé mhm. waaw Modou Ama ñi ba tey ñoom euh, ils sont ñu ngi naan Ama yee yi day déranger Modou Lo waaye dina ko dégg couronne bi day def li nga xamante ni moom mooy Pikine moo tax laa ji daal lu ci mën di dégg mooy ci wàllum ambiance ci wàllum sécurité ci wàllum aussi tamit euh, tayo bi ñu ko natt rek weesu na ko ok ci ci ci ci ñi nekk ci rang bi dugg fi ñu toll nii bëri na wala stade bi moom fees na della car bi dèjà fees na bu yàgg ba boo xoolee léegi sax daanaka war na mat euh, apparemment ay presque neuf cent personnes ndax boo xoolee euh, entour euh, stade bi tellement que ni boo ci génnee commerçant yi ay xale yi ñoo ngi fi ñenn ñi. yor nañ seen ay ticket mënuñu dugg parce que stade bi dañ koo collecté ferme ko. Mhm. Euh, jaaykat aussi am na si ñoo xamante ni d'habitude dañ doon dugg waaye mbir yi dafa fees lu ñu mën a jàpp mooy stade bi rase na fees nga xamante ni moom mooy supporter ci bunt bi toog instant lu ñu xaar lamb ji jeex ñu xam kan moo daan mais mënatuñoo am place bi nga xamante mooy ci biir arène bi. Mor ku wax lamb certainement gis nañ ne politique bi commencé na ci waaw fii di bunt bi nag déggaguñ ci loolu mais ci biir sax ñu ngi dégg Ama yéen doon dégg ak Modou Lo déggaguñu ñu fay wax a affaire de politique en tout cas bi ñu génn Kër Modou Lo kenn ci responsable politique

Euh, deux mille euh, billets lañ ñuy jëndal ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo loolu nag c'est extraordinaire comme moyen parce daaw ñu mbëri seen problème moo doon lan ku leen jàppale moo doon nekk seen problème mhm. mais lu ñu mën a jàpp daal mooy dégguñ ci tudd Sonko dégguñ ci tudd Amadou Ba ok jërëjëf ñu bàyyi la peut nga dugg ci biir bu ko defee di ñàkk nañ jogowaat ak yow incha allah jërëjëf am jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci merci beaucoup en tout cas Mor euh, nga xam ne jot nañu ko indil comme euh, comme li nga xam ne moo di briefing ci par rapport ak yenn ci ay xibaar yoo xam ne jotoon nañu ko di ñàkk ci kanam on sera avec en direct avec Ali moom li nga xam ne moo di beneen moo di euh, nga li nga xam ne moom la moom la moom la moom moom la Mor wax tout à l'heure Djibory <laughs> par rapport ak li nga xam ne moom la amaa Baldé wala moom la ki nga xam ne moo di Modou Lo génnee këram mu di beaucoup de sérénité ak li nga xam ne rek moo di confiance bi nga xam ne génne na ko loolu aussi lan la mën a traduire ci li nga xam ne moo di ci mbër. waaw xam nga gis bëgg yaakaar ko mag. Mhm. làmb. yaa ngi dégg loolu la quoi yaakaar la rek yaakaar parce que tey ku xamoon ni boo génnee boo demee da ngay daanu doo ñëw doo ñëw di bëree. Mhm. yaa ngi dégg nii am abal nii Modou Lo kenn ku si nekk fu mu toll nii yaa ngi téye sa victoire si sa loxo. Mhm. yaa ngi dégg mais li des nag mooy jëf. comme saa quoi. Mm-hmm. làmb ji daal euh, nañ ko bëree ci fair play mu jeex ci fair play mm-hmm. mais làmb ji daal euh, euh, Bamba. mu mm-hmm. waaw waaw. waaw ñaari Modou si jeex na ci yaram moom xam nga dugg seem day. day neex daal. waaw comme dugg na si il fait 17h35 normalement je pense 17h waaw dina may sanction aussi ah. waaw waaw waaw loolu moo ma jaaxal quoi. parce que xam nga dama gis ni Modou Lo comme dugg si bi mu dugg si nii. est-ce xam nga Balla Gaye bi muy bëreeg Modou Lo 10 heures si suba la ñëw. 10 heures waaye ma koy wax tout à l'heure bi muy bëreeg même Gris Bordeaux. Mhm. midi la ñëw midi dafa naa. mu ngi ci làmb ja waa mhm. comme ça mais ku nekk ak sa xar fa xuufa. léegi bu la boo xamee ni yow dina la may parce que euh, euh, di euh, temps bi nga am dina la may nga defar say xar fa xuufa ba yow duñ la yàkkamti duñ la dagg baax na et puis CNG temps bi mu jox mbër yi. mun na yàq làmb. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. parce que tey am na ñu xam ne bëre bi moo leen neex. am na ñoo xam ne du bëre moo leen neex bàkk moo leen neex. Mhm. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne daanaka bu mbër mi bàkkoo pare nañ ci pare nañ ci dem nañ seen yoon waaw. voilà donc mu ngi mu ngi mu ngi doon donc je pense actuellement. Euh, nee nañu moo Lo yes na ci li nga xam ne moo di ci euh, boobule euh, arène nationale. waa ñu ko teg ko voilà donc mu ngi mu ngi noonu. Euh, Modou Lo yegsi na ci li nga xam ne moo di arène bi euh, fële ci li nga xam ne moo di arène nationale donc yéen a ngi koy gis noo ne euh, stade bi aussi certainement du ñàkk ne comme ni ko Mor waxee dina am sax ñu am ticket ñoo xam ne du ñu mën a dugg c'est peut-être pour des raisons de sécurité moo waral ni mel donc actuellement a ngi koy gis noonu suñu ay confrères yu nga xam ne rek moo di RTS yu yu TFM excusez-moi donc ñu ngi ñu ngi noonu actuellement arène baa ngi noonu fees na dell ak li nga xam ne moo di doomu aadama ça veut dire que combat la boo xam ne dina dina dina fees trop waaye li nga xam ne éventuellement moo di moo di moo di combat la boo xam ne dina dina neex trop eh, ci wàllum ferveur ak yeneen ak eh, yeneen donc mu ngi noonu actuellement yeneen koy gis eh, ci li nga xam ne rek moo di si suñu ay confrères yu TFM ñu ñoo war a dalal jàllale combat bi ak waa ITV donc actuellement mu ngi noonu Modou Lo yegsi na il fait 17h37 minutes la yegsi fële ci arène nationale moom Modou actuellement nag Ama Baldé dafa mel ni yegg seegul waaye moom yegsi na ci arène bi noonu gis ko jiboor yi moom ki nga xam ne moo di Modou Lo yegsi fi nga xam ne moo ca arène national euh, il fait 17h37 minutes mu yegsi foofu ñu gis ko également ak beaucoup de ferveur et de sincérité ah ñu gis ko noonu ci image yi waaw mu ngi doon di xaw a jàpp euh, moom Modou Lo mhm. waa xam nga tey euh, Modou Lo ak Ama Baldé ñoom ñëpp ay sénégalais lañ quoi xam nga lan moo ma si jaaxal. Mhm. open press Modou bi ma gis bërki démb parcelle. Mhm. ak open press yi ma daan gis si Modou bu demee ba changé lan moo ko changé. ok loolu. lan moo ko changé. lu ci changé. non waaw parce que Modou Lo open press bi bu fekkente ne dem na bay duy benn turbine Modou Lo open press am ay temps. loolu rek waa ah. beneen affaire la woon. Mm-hmm, mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mais tey bu ñu demee ba Modou di duy benn turbine. yaa ngi dégg di duy benn turbine. mais lan moo ko changé parce que tey da gis ni ñoom làmb la ñuy def quoi. mais pour man politique daf leen koy bëgg a yaaxal. am na wala amut. waaw parce que tey bu ñu demee bay wax ay Modou ñuy am fuñ ko féetale. Mhm. Ama Baldé ñuy am fuñ ko féetale. comme ça comprendre nga li ma la wax. Mhm. parce que tamit da ngay gis ni askan bi aussi dañoo dem ba ñoom seeni jooy seeni jooy ak seeni i mhm. ak coonay réew mi dañ ko dugalaale ci làmb ji. comme ça léegi ñoom da ngay gis ni mbër bu jooyal askan bi. yaa ngi dégg. Mhm. askan bi daw tafu la jàpp ni yow kesey mbër mbër bu jooyalul askan bi askan bi daw la jàpp mel ni yow doo mbër loolu moo dugg ci làmb ji. Mhm. dafa xaw a dugg ci làmb ji nañ ko wax te dee. Mhm. comme ça parce que boo seetee open press su Ama Baldé tey fees bi mu fees. open press su Modou Lo fees bi mu fees yaa ngi dégg. ku nekk am na droit par. yaa ngi dégg mais jëmbat ñu ngi gis Modou Lo ngi noonu euh, di xaw a jàpp ñu so gis également ci si le port vestimentaire lii lan lay traduire gis ko mu ngi saafanteeg ay supporter am waaw euh, ñu ngi noonu di di yuuxu gis nañ ko également mu indi li nga xam ne moo di ay sëriñ yu bëri bari mu Modou Lo mu ngi doon taxaw uh-huh. euh, ñu gis ko mu taxaw noonu ci digg bi yéen yéen moom sol nii lu muy traduire waa xam nga kii yére aada la de waaw waa xam nga kii yëre aadala uh-huh. léegi da ngay gis ni yére bii lu si ëpp galaaju séeréer la séeréer galaaju séeréer la uh-huh. séeréer dina ko sol pël dina ko sol parce que lii su euh, tey ji làmb suñ culture la parce que booy seet cuub la cuub genre cuub yoo xam ni mm-hmm. euh, dëgg-dëgg lu si ëpp pël fuuta yi ñoo koy def joolaa séeréer yooyu yëpp dañuy utiliser lii mm-hmm. wax dëgg yàlla xam naa ci ci gàllaajam la bokk quoi wax dëgg yàlla waaw waaw parce que booy seet Modou Lo ak euh, Eumeu Sène mhm. dafa bëri lu ñu nduróole xaw nañ nduróo ay affaire wax dëgg yàlla waaw dafa mel ni mu ngi noonu ci biir arène bi de mu ngi noonu moom Modou Lo euh, mu ngi noonu ba léegi mooy def ay euh, débat débam waaw gis nga nag supporters yi moom ñu ngi ci benn wàll bi noonu di di di saafonte moom yaa ngi koy wax culture de waaw mais xam nga tey boo boo duggee si làmb ji mhm. dafa am sëriñ bi fu mu lay wax ne la. waaw da ngay ah, léeg sëriñ danaa la dalay lay da ngay wan ci mikaay bi. Mhm. da boot ci mikaay gi. Mhm. wala da ngay wan ci ci mikaay gi kanam. Mhm. yaa ngi dégg parce que am na si benn mbër bi buy parce que booy seet euh, ni kii Yékini Bombardier bii nga xam ne Bombardier dafa boot ginnaaw dafa dafa taxaw ñu ne ko fii ngay taxaw kenn fii la ay taxaw. ba ñu dem ba si fiis tet ba paa boobu naka la tuddati euh, paa Mohamed Ndiaye Robert. Mm-hmm. ñëw defar làmb ji bañ jox ko ci un million. Mm-hmm. booba Bombardier dafa bëgg boot ci mikaay bi ci mikaay bi la bëgg a boot. ci mm-hmm. mikaayam. te jëlee nañ ci euh, euh, naka kaaw Yékini ñu ne Bombardier bu bootul woon ci mikaay bi Yékini da koy dóor mu daanu. léegi dafa am mbër yoo xam ne dañuy boot ci mikaay bi dañuy boot seen ci mikaay. léegi fii. da ngay gis ni day day day waaw sëriñ tegtal yi nga xam ne sëriñ bi jox na ko ko mm-hmm. pour mu suul ko yow sa par sa kii bi dem na euh, euh, tegtal yi nga xam ne sëriñ bi jox na ko pour mu suul ko mm-hmm. galaaj yi mu war a suul da koy suul fu mu toll nii da koy suul lépp mu ci biir ba léegi waaw waaw da koy waaw waaw galaaj yi mu war a suul da koy suul léegi bu ko suulee ba pare après ci lay génn suñu génnee ba pare mm-hmm. doog a dem tuus eh, waa dem tuus. mais ci mikaay gi léeg-léeg moo koy jiitu. Mhm. parce que léeg-léeg sëriñ bi dalay tegtal ne la teg ko booru penku wala teg ko booru soowu. léegi après ci lay doog a génn dem ci cimikaayam. Mhm. léegi galaaj yi muy laal ci cimikaay bi. ak bi mu suul ci ci biir géew bi. Mhm. ak yu mu war a tuuroo ci biir géew bi ak yu mu war a sangu ci cimikaay bi mu commencé nag di ko teg benn benn benn benn benn benn noonu lay def. lee mu yore nag. mu eh, sengoor gi mu yore mooy dàkk gi dàkk ak ndaam. parce que moom lay tàllal moom lay laxas si ndënd bi après moom lay takk si ndigli li. wax dëgg yàlla waaw c'est important voilà actuellement moom Modou mm. mu ngi noonu eh, ci biir li nga xam ne rek moo di arène bi di def ay débat débat xam naa nag du fa yàgg dañ koy jox li nga xam ne moo di ab temps eh, boo xam ne certainement war na ko fa def ci biir li nga xam ne moo di arène bi gis nga ko mu ngi ànd ak ay nitam noonu ñu ngi koy sotti ay saafara ak yooyu parfois mu xaw a jàpp di saafara mbir biir a nationale bi donc bu génnee du ñàkk ne Ama Baldé moom dina dina yegg si bu yegsee nag ñoom kenn ku ne rek dugg daal di def ay débat